wal taatifi bi nadratin taati lana bi zafari mbokk yi ñuy ñëw yéen ci seen téere bu ñu wax دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الدرس العاشر درس في الكلب حامد حامد mooy laaj Hamid mu ne man anta yow la kan Mouhamed tontu ko ne ko ana man taalibun taalibe la bil jaamiat ci université bi Hamid ne ko anta ndax yow taalibun taalibe nga jëriñu bu bees Muhammad ne ko naam waaw ana taalibun taaliba laa jadidun bu bees Muhammad ne Muhammad min ayna anta yow la kan Muhammad ne ko ana man min al hindi maa ngi jógee hindi Hamid wax Muhammad mu ne ko maa ismuka la mooy sa tur Muhammad ne ko ismi sama tur Muhammadun Muhammad la Hamid ne ko wa man haadha al fataa kan ma waxambaane alladi bi nga xam ne maaka ànd naag yow Muhammad ne ko foo moom zamiili sama morom la xamit ne ko ak woo ndax moom sama morom moom aydan ba say minal hindi mi jógee hindi Muhammad ne ko laa déedéet woo moom sama mbokk moom noonu minal yaabaani mu jógee yaabaan mu ne ko maa ismuhu lan mooy turam xamit ne ko maa ismuhu lan mooy turam Muhammad ne ko ismuhu turam Hamdatun Hamza la maa luxatuka la mooy sa langue yaa Muhammad yow Muhammad luxati sama langue al urdiyatu mooy urdiya ahiya ndax moom luxatun langue la sahlatun bu yomb naam waaw hiya moom lootul lang la saharatul yom wa hamzatu ak hamza maa luxatuhu la mooy langam luxatuhu langam al yabaniyatu mooy yabaniya waaye moom luxatul lang la saabatun bu naqadi al luxatul labaniya luxa lang yabaan ayna abuka ana sa baay yaa Muhammad yow Muhammad abi sama baay fi Kuwait mi ngi Kuwait huwa moom tabibun docteur la shahirun siw wa ayna ummuka ana sa yaay hiya moom aydan ba tey fi Kuwait mi ngi Kuwait maa abi ànd ak sama baay hiya moom mudarrisatun jàngalekat la hunaka fële azhabta ndax dem nga ilal Kuwait jëm Kuwait yaa Muhammadun yow Muhammad naam waaw azhabtu dem naa wa zamiluka ak sa morom أين أبوه أنا بايم أبوه بايم في اليابان من اليابان بومم تاجر كوميرسال كبير بمك قال لك أخ ndax am nga mbokk يا محمد يا محمد لي am naa أخ mbokk واحد benn اسمه ترم أسامة أسامة la وهي وهو moom معي أن moom هنا في في المدينة المنورة في مدينة المنورة wali ñaal na ma uxtun mbokk waaxidatun bay benn ismuhaa turam zeynabun zeynab la wahiya moom fi lciraaqi mi ngi ciraaq maa zawjiha ànd ak jëkkëram zawjuha jëkkëram muhandisun ingénieur la am nga oto yaa xi yow mi muhammad ni ko laa déedéet maa indi aw oto عندي أن درجة ثلو حمزة حمزة عنده أن سيارة أصف تمرين أي جمنتو أجيب تونتول عن الأسئلة الآتية في الآتية اليوم ما اسمك؟ لن ما يستر ما لغتك لم ما سلام أين أمك أنسى ياي ألك أخت دعوة بكو indaka daraajatu ndax am nga vélo indaka daftaru ndax am nga kaye min ayna muhammadun ana muhammad ayna abuhu ana baayam min ayna hamdatun ana hamda ayna abuhu ana baayam ayna zawjuha ana jabaram yi nag yaay tontu ko ne maa la comme misaal maa luxatu ko la mooy sa langue ne luxatu nga wax ne lan mooy boobu bu nekk sa langue ndax tegal fi mën naa min ayna anta yow la kan ayna abuka man sa baay alaka akun ndax am nga mbokk indaka sayyaratun ndax am nga oto indaka qalamun abuka ah, ah, sa baay ah, taajimun maaluxatuhu lan mooy langam yow yaay tontu ayna ummuhu ana yaayam tontu euh, maaluxatuhu lan mooy langam nga tontu ayna zeynabun ayna zeynab nga tontu ana zeynab zawjuha nag jëkkëram mu dar mu dar suñu jàngalekat yaay tontu daa tegal fil ci barab yooyu di maa ci dëkk ha damiir ha damiir kii haadil bintu xale bu jigéen bii taalibatun taalibi la ismuha fii nag daal def ismu rek mu ne nga yeggali ko jigéen bu fekkee jigéen la haa ngay def bu fekkee góor hu ngay def comme haadil bintu gi ma wax taalibatun wa ismuha ngay def ismu haa zeynab ndax jigéen bi haa lay ànd ak waaye bu fekkee hu la waaye bu fekkee góor la hu lay ànd ak comme muhammadun tabibun moom muhammad gu moom ko hu lay ànd ak fekkee jigéen la xaa lay ànd hada rajul góor gi taajirun commerçant la ismuha turam abdullahi abdullahi la aminatun amina fil araq min ci araq yaay tontu fil matbax xaashatun aminatun amina fil xurfa min saal bi wa ummu fil matbax yaay tontu aïchatun aïcha tabibatun docteur la wa uxtu yaay tontu mardatun sa sam xaraja génn na muhammadu muhammad mu ne xas jógee ci biir classe bi wa xaraja mu génn ma xaw ànd ak moom wa xaraja mu génn ma xaw ànd ak moom sami ni ko sa morom xaat indal xamsu asali juróomi laaj waa jubatan ak ay tontu kam misaal yaa teye ko am misaal yi dikk ayn dëkk ndax am nga xalamun bik naam waaw andi am naa xalamun bik xaati indil xamsi xamsatu asilatin juróomi laaj waa jubatan ak ay tontu kam misaal yaa teye ko misaal yi dikk ayn dëkk xalamun ndax am nga bik laa déedéet ma indi aw ma xalamun bi tàmmal satantal maa ngi nii dikk baytul kër bayti sama kër baytu ko sa kër baytu këram moom góor ko fi nekkul baytu xaa këram moom ko jigéen ko fi nekkul àndaka mooy firi lam xar suñ la wax boo waxee lii ñeel loolu lu am xel lu am xel lu ñu la ay ndek moom kuñ ko laaj rasulullah laaj lu am xel lu amul xel lu amul xel moom la moom nga waxee ay ndek ñu waxee ay ndek nga ne indi ñu waxee laka nga ne lii su boobaa loolu day firi lu am xel waaye ay ndek moom di firi loo xam ne amul xel ay ndek lu amul xel lay firi waaye indi ak indi waaye bu fekkee nag lekk la lekk ñaanal nga ne lii ñeel na ma su boobaa loolu am xel la loolu am xel la baytul mahir kër bayti sama kër baytu ko sa kër baytu këram moom ku wóor ku fi nekk ku mu fekkee ku wóor ku fi nekkul la ku nga fi yokku bu fekkee ku jigéen ku fi nekkul la nga fi yokku baytu këram moom ku jigéen ku fi nekkul ñëw ci اختلاف الأصوات في طول الذكر إلى متكلم دمجلا والمخاض وقبنا والغائب أجي فرد والغائبة أجي فرد كما هو كم نك ليرلي في موضوع في موضوع كما هو كم نك ليرلي موضوع كما هو كم نك خمنت له موضوع ليرل له في المثال انت مثالي قلم بك هذا لي قلم بك له هذا لي قلم كسب بك له هذا لي xalamu bi gam la góor ku fi nekkul haadaa lii xalamu haa bi gam la góor ku fi nekkul kitaabun téere sol yi noonu lal da ngay def haadaa kitaabi haadaa xalamu ka haadaa kitaabi ak kitaabu ka haadaa kitaabu haadaa kitaabu haa noonu ngeen defee misaal yëpp comme ni mu la ko joxee misaal bu njëkk bi haadaa sariirun lal yaa koy def ismun tur mindilun musuwaar ibnun doom iyaaratul fasaar miftaaxun caabi yeddun loxo iqra jàngal lii ñaan na ma laka ñaan na na ko laa ñaan na ko ñi ñaan na ma bokk waaye duñ doy benn alakaakun na xam nga laa déedéet maa maa li yàqun amu mbokk uxti sama ko mi laa ñaan na ko tiflun xale saxiirun bu ndaw jamili sama law ñaan na ko ah law ñaan na ko aqun mbokk mbokkum jigéen yaquul wax na andi am naa kitaabun téere wa yaquul mu wax li am naa aqun mbokk laa na xuru duñu wax andi aqun na xuru duñu wax andi am naa aqun mbokkum ah ànd ak moom xaraja génn na xaamidun xaamid maa xaalidun ànd ak xaalid zahaba dem na tabibu docteur bi maa al muhandis ànd ak ingénieur bi jalasa toog na al mudarris jàngalekat bi maa al mudir ànd ak directeur bi man maa ka kan ànd ak yow yaa ali yaa ali maa ngi ànd nag moom al mudir directeur bi amina maa ànd ak moom zawjuha ci këram xaraja génn naa bi sama baay minal bayt jógee ci biir kër gi man xaraja kan moo génn maa ànd ak moom xaraja génn na maa ànd ak moom ah, mi yun suma bàyyi tex bi de baytun kër baytu ka mooy firi kër baytun mooy firi kër waaw baytu ka mooy firi kër baytu wu mooy firi kër moom ku góor ki ku fi nekkul baytu waaw mooy firi kër moom ku jigéen ku fi nekkul baytu yi mooy firi suma kër abun mooy firi ku sa ku ku ku jigéen ki ku abi sama baay mbokk aku ka sama mbokk akuhu mbokkam akuha mbokkam aki sama mbokk abi sama baay ummi ak sama yaay fil bayti ñu ci biir kër gi ana abu kan sa baay hamil yohan daba dem na lesu ko jëm ci marché bi aku ka sama mbokk ay doctora daa dina moom moom mudarrisu jàngalekat la Zeynab Zeynab si Riyaad mi Riyaad axuhaa mbokkam si Taayif mi Taayif wa abuhaa baayam Tunis nooram Tunis noora xaw taalibu taalibe bi abuhu baayam <laughs> wasiirun directeur la wa axuhu ak mbokkam taajiram commerçant la kabir bu mag zaam na xëy sama mbokk mu madrasa jëm ci école ba wa zaam mu dem abi sama baay ila jaamaat jëm ci université bi Muhammadun Muhammad Xaalidun Xaalid Haamidun Haamid Abbaasun Abbaas tur lañ la Mahmudun Mahmud Hamzatun Hamza Talhatun Talhat Usaamatun Usaama tur la Muaawiyatun Muaawiya tur la aqra jàngal asmaul atiya tooy digg wut bi nga maag axiraha mujj ga xaalidun xaalid astula hamdatun hamda maarun ammaar anasun anas muawiyatun muawiya xaamidun xaamid usaamatun usaama akramatu akramatu abbaasun abbaas muhammadun muhammad talxatu talxatu alkalimaat jadida baari bees azamiinu mooy firi morom attiflu mooy firi xale azawju mooy firi jëkkër alkuwet mooy firi kuwet waaxidun bay benn ati waxan baane maa ànd ak اللغة اللغة kon moom moo nekkoon dars bu njëkk bi dars hada a cheikh dars fukk ak juróom-ñaar bi hada bayti sama kër la lu may jàngal nangu bayti sama kër da ngay wax sama kër bayti ngay wax waaye doo wax baytu rek foog nga daal def tii ci def yaa hada bayti sama kër bayti sama kër ji bayti sama kër jamilu rafet la ñii nekk na ci ذخيرة الغلو هذه لي غرفتي سمسا لا فيها نجنجي نافذة الفلاتر خبير بالمت قمر وحتى باللاتر جميلة التراب هذا سريري يسمى الله وهذا كرسي يسمى سيدة وهذا مكتبي يسمى تابل ساعتي يسمى مونتو وقلمي يسمى بي وكتابي يسمى تير ولم أكتب من جكر تابل بلي وحقيبتي ثم ساك تحت المكتب من شوف الطابل بي نافذة فناتر غرفتي ثم مفتوحة بلا هذه لي غرفة أخي ثم سالم بكرة وتلك غرفة أختي ثم سالم بكرة جبن لك waxoo tax soo Sall moo ko ne xabiratu la mag la waxoo tax soo Sall moo ko ne jigéen ñi saxiiratu lu ndaw la nag waxoo tax soo Sall moo ko ne ama man xurfati yi ñu ci kanam sama saal bi waxoo tax soo Sall moo ko ne jigéen ñi ama man mat baxi ñu ci kanam wàññi li ñaan la maa ko mbokk waaxidun bay benn ismu turam usaamatu usaama la wari ñaan na ma waxtu mbokk waaxidatun benn ismuha turam suadun suad la abi sama baay wami sama yaay fitir ka xurfat ñu ngi si bala saal alkabiratu mag bi anaaman waxi bu bëgg naa abi sama baay wami sama yaay waxee bu bëgg naa ak sama mbokk xanaa jàng nga rëkk dana bind man fi bay man fi haadal bayt kan moo nekk ci biir kër fii nekk na ci xaamidun xaamid maada fi xaqibati nekk ci biir saag bi fii haa nekk na ci kitaab yi sama téere wa qalami ak sama bik wa daftari ak sama kaye man fi siyaarati moo nekk ci biir oto yi fii haa nekk na ci sama baay moo nekk sama yaay waa ak sama mbokk foofu yow soo ko ñu génn man man fii man fii ka moo nekk si jàkka ji jaanaat ñu def sama àll léegi ka moo nekk si jàkka ji ñu léegi maa ngi leen di jaangul kenn man fii àgg yi xobbati ka moo nekk si directeur yaa nekk na ci almudiru directeur bi xaraa jàngal xëy bëgg naa bi sama bàyyi mun meek sama yaay xëy bëgg naa zamini sama morom xëy bëgg naa laa yàlla xëy bëgg naa luxatul arabiyya laa moom arab wax bu bëgg naa xëy sama bàyyi ak sama mbokk kooku tii sama mbokk bu jigéen bëgg naa ustaas yi sama ustaas ay bëgg naa nabi sallallahu alayhi wa sallam jàll Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag li moo nekkoon suñu darsu tey bi nuriidu ila al-islaah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilaihi salaamu aleykum wa rahmatullah